تسنيم اونلاين moo leen di may jotaayu koor الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen suñu xadisu tey bi nga xam ne moom lañu jël ci jataayu koor xadisu abi bakara la doomam moo ko solo jële ko ci moom bi tudd abdurahman an abihi mu solo jële ci baayam bi nga xam mooy abu bakara الثقفي ترم ميغ تودون نفيع ده ابو بكر داك ابو بكر داك انت الله بوكلك ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق عبد الله لتدون عبد الله بن عثمان عبد الله بن ابي قحافه ميكي ابو بكر لتدو ترم ميغ تودون نفيع ابو بكر دفنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت متفق عليه حديث بي أبو بكر دفنه يننتبه عليه السر السم دفلنا لاج بين بس تبول تب وخلين ما دفلين لاج نلين دخلو ما لين خمل بكاري جن ماغتي بكاري te bul tëb ne leen bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi mooy nàngam waaye daf ne ndax duma leen xamal loolu dina ci xamee saxaaba yi pare giñ pare pour jàng ak xër giñ xër ci xam-xam ne lim leen di waaj a wax soxla nañ ko yitteel na leen waaye tamit dina leen ko laaj ngir bëgg ñu bàyyi xel ci lim leen di waaj a wax ndax wax ji dafa am solo bu tëbee tëb wax leen ko mën nañ xëy na bañ a bàyyi xel ci li muy wax waaye bu leen laajee ne leen ndax duma leen xamal bañ ne ko añ kay xamal ñu dinañ ko déglu ndax léegi day daal di am benn sàkkuteef gu am jóge ci ñoom te nit lu ko soxal ba mu koy sàkku daf koy yittewoo ka loo xam ne dañoo tëb tëb rek proposé ko ko moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu ci méthodologie am la loon ni mu daan doxale ci njàngaleem muy pédagogie boo xam ni xereñ la woon ci ni mu daan jàngale daf daan jékki-jékki laaj saxaaba yi benn question ngir loolu xëcc seen attention muy ñu bàyyi xel ci lim leen di waaj a wax saxaaba yi ne ko balaa yaa allah añ kay yow yonente bi alayhi salatu wasalaam xamal ñu ko soxla nañ lool xam bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi ndax julit bi du rek lu baax la war a xam dafa war a xam lu baax xam safaanu lu baax alimam ibnul qayim nee na kooku mooy ki ëpp xam-xam ci nit ñi ki xam lu baax ba mu leer ko mu xam lu bon ba mu leer ko ndax kooku mooy gën a mën a ràññatle diggante lu baax ak lu bon jëfee lu baax moytandiku lu bon ndax balaa ngaa mën a ràññeet la ñaar yi foog ñaar yépp leer ci sa bopp waaye bu fekkente ne ñaar yi leerul léeg-léeg njaxas mën na am moo tax yonent bi alayhi salatu wasallam fii lim leen di jàngal lu baaxul la lim leen di jàngal ci xadis bi lu ñu war a moytandiku la du lu ñuy jëf bu fekkante ni lu baax rek li sell rek li ñuy jëf rek loolu la ñuy jàng kon du leen du leen wax lii mu leen di waaj a wax waaye da leen koo wax ngir ñu xam ko mun koo moytandiku saxaaba yi ne ko xañ ka yow yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne leen al ishraaku billah mu ne leen bokkaale ak yàlla waxul ashirku billah mais al ishraak la wax mu jëfandikoo masdar bi mooy nit ki bokkaale ak yàlla mooy jël lenn ci mbindeefi yàlla yi jox ko loo xam ne àqub yàlla la jël ko dendale ko ak yàlla boole ko ak yàlla ci lenn loo xam ne àq suñu borom la ndax dafa am àq yoo xam ne yàlla rek moo ko yelloo yàlla daf ñoo tere ne buñ ko jël di ko jëmale ci kenn wala lenn lu mën a doon moom rek lañ ko war a jëmale ci moom ndax loolu àqam la buñ ko jëlee jox ko leneen loolu tooñ lay doon ndax al zulm mooy wadu shay fi gayri mahallihi tooñ mooy nga jël dara teg ko ci fudul place am jël cër jox ko kudul borom jël cër jox ko kudul borom bu ko defee loolu tooñ lay doon loolu moo ñuy delloo suñu xadis bi ñu jàngoon muy xadisu Abdullah bin Masud daal xadis Abdullah bin Masud la mu ca waxoon mooy ba aaya ba wàccee ne ña gëm te njaxasuñu ci seen gëm tooñ ñooñu ñoo nekk ci eh, jàmm ñoo nekk ci sécurité yonent bi daf koo tekki woon alayhi salaatu salaam ne tooñ googa mooy bokkaale kon fii dafa wax ne bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar yi mooy bokkaale bokale dafa yàq jëf day fecc ngëm yàlla bokale bu ci nit ki faatoo daf koy saxal ci biir safara bokale bu ci nit ki faatee dugg aljana day xaram ci moom innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar la wax bu nit ki bokale ak yàlla yàlla day aramal ci moom aljanna baba muy tuub li fek faatoogul am na occasion pour tuub bu tuubee aram googu ñu teggi ko mooy loolu yàlla defoon ci ne kii du teg tànkam aljanna yàlla teggi ko bu fekkente tuub na laata muy faatu waaye bu fekkee tuubul ba faatuwaaleeg bokkaale boobu faqad harrama allahu alayhi aljanna ji dafay sax dafay wéy mooy yàlla daf koy xañ aljanna kooku day daal di jëm safara nasalullah salaamatu alaafiya kon bokkaale baaxul dafay yàq li nga xam ne mooy diine moo tax yàlla tere woon ko yonant bi ak limi mag mag yep ak liko yàlla di fek fek yep ak diko ko musal ngir ñun julit ñi buñu déggé déggee ñu xam gravité bi nekk ci bokalé yàlla tëkku ko ci tëkku ci yonent yi ko jiitu woon ne ko laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka la takunanna min al-khasirin yàlla waxyu na la ni mu wahyo won yonent yi jiitu woon yépp jiitu ne ko ku ci bokalé ci ñom yàlla neenal sey jëf te nit munta am maqaama bu gën a màgg maqaama wu yooyu aleyhimu salaatu salaam ñooy ñi gën ci doomu aadama yi ñooy ñi gëm ci nit ñi ak ute bi am ci borom xam-xam ci diggante ñoom ak malaaka yi waaye bu fekkente ni ñooñu nga xam ne ñooy ñi gën ci doomu aadama yi bokkuñu gën ci mbindeef yàlla yi ñoom la suñu borom subhaanahu wa taala di tëkku ci lu mel noonu loolu kon képp koo xamante ni da ngay góorgóorlu ci lu baax ba nga texe ëllëg war nga cee bàyyi xel ci yonant yu jiitu woon ba ci yonant bi nga xam ne moo ki gën ci yonant yi alayhi salaatu wasalaam yàlla subhanahu wa taala wax ko ne ko bu fekkente ne yow itam bokkaale nga yàlla dina neenal say jëf kon loolu julit bu nekk na cee bàyyi xel moo tax yonant bi alayhi salaatu wasalaam wax ko saxaaba yi daal di ciy teg beneen mbir mooy beneen àq boo xam ne yàlla dala ko joxloo ki nga xam ne bi mu lay indi ci àdduna ci kooku la la jaarale ndax yàlla moo la amal jële la ci neen amal la kon yàlla moomu jox ko ak xam te bañ koo jël di ko bokkaale ak kenn li la war sa diggante sa borom góorgóorlu ci sa kéemtalaay kàttan waaye moom yàlla moomu la amal itam sàmm loola ay ak xam moom yàlla bi lay indi ci kaw suuf tàbbalu la ci kaw suuf nga xëy xëy ne jamet daf laa jaarale ci ay waajur waajur yooyu tamit am taxawaay bu rëy rëy bu leen yàlla jox am cër bu rëy rëy bu leen yàlla jox ndax ñooy sabab ci ñëw gi nit ki di ñëw ci ko suuf yonente bi alayhi salaam teg ci ne waa wa uququl walidayni ak dënge ñaari waajur ñàkk def mbaax jëmale ci waajur jël ay ñaawteef ak manque de respect di ko jëmale ci waajur dagg waajur ñàkk taxaw ak ñàkk dimbali waajur ci bépp xeetu dënge boo xam nit ki daf koy mën a def yonent bi alayhi salaam teg ko ci ginnaaw bi mu waxee ci àqu yàlla mu teg ci bu waajur comme nu ko waxee woon wa qada rabbuka an la taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsaana sa borom li mu farataal waral ko ci jën ñépp mooy ne bu leen jaamu kenn wala lenn lu dul moom waaye na ngeen def njëkk jëmale ko ci seeni waajur loolu nekk bunt bu yaatu yonent bi alayhi salatu wasalam wax ci daal di fekk mi ngi dëstandiku woon mu jóg toog daal di ne ala wa qawlu zuur ak itam wax joo xamante ni waxi nar la wax joo xamante ni wax ju dul dëgg la wax joo xam ne wax ju dul dëgg la wax joo xamante ni wax ju neenu la wax ju yàqu la li tax mu tegaat ko ci mooy dafay yàq nekkinu nit ñi ci kaw suuf ndax nit ñi bu fekkente ni dañuy sukkandiku ci wax joo xam ne du dëgg dinañ jël àq xañ ko borom jox ko keneen koo xamante ni yellawu ko ndax wax julul dëgg ñàkk wax dëgg mooy ñàkk jël àq teg ko ci palaasam ndax ñàkk jël àq jox ko boromam loolu kon di wane ne ñetti àq ngi noonu benn bi àq suñu borom la moom mi la amal benen ba ci des àqi sa wajur bi nga xamni sa wajur yi nga xamni ci ñom la la yàlla jaarale bi mu lay amal benen ba ci des moy aqi yi nga xamni moy aqi mbindef yep nit ki dem ci ak dëggu bañ di ci wax wala mu ci sédé lén lo xamanteni lu deug yonente bi alayhi salatu wasalam xam ak ni mu bañé won wax lu dul deug aisha radiyallahu anha neena xawma won jikko bu yonente bi alayhi salatu wasalam gëna bañ wax lu dul deug neena su kenn ci njabotam musana wax lu dul deug ba mu xam ko ci mom nee na dina ko mere ay fan saa bu dajee kooku walla kooku xool ko dina yëg ci yonant bi alayhi salaatu wa salaam ne mere na ko ci ñàkk wax dëggam jooju mu waxul mu defoon kon jikko boo xamante ni bi baaxul moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon ab jullit bu gëm yàlla bépp jikkob doyadi bu ne mën na nekk ci moom ba mu des di wax lu dul dëgg ndax wax lu jul dëgg dafa méngoowul ak jikkoow jullit bi gëm yàlla ndax gëm yàlla dëggu la dëggu ci xol boobu ci xolu nit lay nekk bu fekkente ni nekk na ci xolu nit dëggu dina jafe muy melowaat melokaanu wax lu dul dëgg wala wane lu dul dëgg ci moom wala di ko jëf loolu moo tax loola nga xam ne lu dul dëgg la loolu nga xamante ne bi wax lu dul dëgg la wala di ko jafe nekk melokaan ci melokaani naafiq yi léegi loolu kon la suñu yonantu alayhi salaatu salaam wax ci xadis boobu tënkal ñu ñetti mbir yoo xamante ni boo ko seetloo benn bu nekk ak ci bunt bi mu jëm benn bi ci suñu boroom la jëm ci sellal gi ko nit ki war a sellal ak màggal gi mu ko war a màggal mooy lépp loo xam ne bokkaale la ba ci bokkaale bu sew bi nga xam ne mooy waatu xeetu ngistal ak wane woog ndéggtal ci li yàq diine doomu aadama bokk na ci te bu ko nit ki moytuwul mu yóbbu ko ci bokkaale bu mag bi te baaxul dafay yàq ay jëf nekk lu sew lool di yàq xol itam nit ki war a góor góorlu ci xeex boppam ci moytandiku ko beneen bi ci des mooy diggante nit ki ak waajuram yàlla subhaanahu wa taala jaare lañu suñuy waajur digal ñu ne nañ def njëkk jëmale ko ci ñoom mu nekk baat bu yaatu boo xam ne lépp lu baax lépp lu rafet ci lu yàlla gërëm mi ngi ci biir ci lu yàlla gërëm ndax topp geeg njëkk gi lépp dafa war a tegu ci kaw lu yàlla subhaanahu wa taala gërëm waaye mooy ko tamit def safaanu loolu mooy di leen dënge di def ñaawteef ci doxalin ak ci ay wax di ko jëmale ci ñoom ci bunt yi gën a mën a alak doomu aadama yàqu ko def détruiral ko àddunaam ak diineem loolu bokk na ci muy def ay ñaawteef di ko jëmale ci ay waajur nasalullahu salaamata alaafiya beneen bu mujj bi ci des mooy li nga xamante ni mooy àq doomu aadama yi ak réalité bi nit ñi di dund nga bañ koo nit ki bañ koo transformé bañ koo deformé bañ koo soppi ci di ko waxee nu bokkul ak ni mu amee ndax loolu mooy yàq nekkinu nit ñi mooy yàq relation wu nit ñi yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala sàmm aaral ñu suñu dine fegal ñu ko ba mu ñoŋ ci bàkkaar yu màgg yu bon yi wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wasalaamu aleykum wa rahmatullah tasnim online moo leen doon may jotaayu koor membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.